moom bu dugg see rek ñëpp koy xam baa yëg ngeen loolu. Hadj Hadj a ngi nii. waaw mi ngi nii de. mi ngi nii de. non doo doo nuyu Si Malick ah. Yaas bàyyi ko mu def daal di mujjee Yaas. non non bi fi toog. sëriñ bi Siré. si ah. waaw Si maa ngi lay siyaar bu yor. jërëjëf ayca sama jarbaat la waaye moom ceddo la woo xam ne <laughs> waaw <laughs> des na sax bu gën a bu gën a kii bi waxagoo ko. non non non kii moom kii <laughs> bu gën a fort. ba lan bi bu gën a fort bi. yaas boobu noonu dafa am bu gën a fort. <laughs> non bàyyi ba ci biir. boobu dafa laaj dëkk ba suur. non waa tey nag moom kii bi bu laa fanaanoo. doyen baal ma de. tonton daal yéen naa la ah da nga koy yeewoo. fanaanoo ak yeewoo ñaar yi laa boole. masa coono. day metti nag day metti nag. Ah. masa coono. waaye démb xam rek nekk ci bagage yi. Ah, mooy yoon de. waaw waaw monsieur le maire. ah ci loonee. tey da ngaa bële yow fooratoo fii. ah tey da ngaa bële non man xam nga sama jikko. farawaat di njaag moom nee la man moom boo déggee ne so laal naa bees bi wala maraw bi moom. <laughs> da ngaa tilimle. waaw. Ahmed. fóotkat bee ñëwul. Ahmed. waaw. Neel Mbaye nekkatu ci groupe whatsapp bi wax ko. non génne nañu man boo ma retiré ñu bëri dañuy quitté yéen ñaaree mujjee des ci groupe. exclu ah. loolu dafa leer. temps la de yaa xoolal officiel bi. non dafa leer xoolal officiel. <laughs> biray yow. yaas. tey ñaata nga bëgg ñaata nga bëgg. tey non non man. 2000. ah 2000 nga bëgg. ah ëppal nga nag. ah non ëppal lu ma lu ma nee la. ah baax. 1500. déedéet yaa ngi 1700. waaw ñu mën a sori foofu. kon koy 2000 lañ jëm nag monsieur le maire. Ahmed nuyul Birahim. ah Birahim Touré ah. nuyu naa Birahim Diadji Touré. Eh, mais bi ma retiré ma mbay ba tam tey seetlu naa benn affaire. ah ah. loo seetlu. <laughs> Ah. loo seetlu nag su ma demee gars yi dañuy dem. Facebook officiel bi mooy tàggatoo ñoom. dugal c'est que nag xam nga non non dafa am fii problème man mënoo maa retiré. dafa dëgg wax ak administrateur bi. mënoo maa retiré. moo ngi Idrissa Seck laa retiré ndaw. ah groupe bi waaw. Ah. réew mi. waaw Bougane la retiré ba léegi wala. non non Bougane Bougane mi ngi ci biir. dama koy dimbali rek a bañ dama koy jàppale di ko dimbali. non Bougane a il a son avis foog mu wax quand même. nga ne lan foog ko si biir bàyyi leen ko a son. Eh, dañ ko xool vue ah, rek audio yi day dina gis lu ko intéressé si groupe goog te du ko wax. boo waxee ñu retiré déedéet bu wax ko kii. <laughs> ñëw fii gars yi maa leen naan c'est moi qui suis l'administrateur. waaw waaw doxal na nga laajal ki ma dikkal géej waay bu ko ajee ba tey audio looy wax waa koñ maa ne ko nekkal ci groupe bi defoo déli quoi. Mhm. parce que ba tey demoo. waaw wax dëgg. Idrissa sama nañ koo nañ ko Idrissa ba wóor une heure ñu ne ko tëj dafa xëy rek gis boo ne ko Ahmed vous a retiré parce boo leen teeree retiré fajar gi seen militant fa la ñu ne di kaas. Mm. xuloo bi mel ni pour lañ mën la ci groupe bi dañuy bàyyi ba gars yi tëdd nga retiré. dugalal dugalal tonton dugalal tonton. ñu de mu ni. Hmm? mu ne ma dugal kan. dara. yow tonton boo demee dugg na anonymement. wala mu yónni nit sax toog leen foofu rek. billahi dugg fi hmm. mais dugg ci groupe bi la. Antoine sax laay xool duñ koy dugalee. Ahmed Antoine man merci rek. waaw. non hmm. dinaa mujj xool ni ñu ko dugalee. dugalal ko waaw parce que nag. kaa yi nag doyen. kaa yi nag war nañ cee def débat nag taxaw nag. waaw à ay mbirum kii yeeg yooyu yëpp daal opposition beeg yooyu yëpp mais daal war nañoo ah. nuyul waa Zik FM c'est un rituel. waaw waaw waaw ñi ci rajo yi. waaw rajo yi ñuy nii ñu ngi nii ci yoon. am na ñi nga xamante ni dañuy dawal. mais li ñuy dawal sax duñ ko xam. maanaam déetaan yi ndax ay reetaan nag ay information ah te lii fii la am si Zik FM. non non kon nag soyez discipliné. ñu nekk soyez ah. discipliné nag kon. xale yi jàng yi ne leen ñu moytu. corona baa ngi fi waaye nañ jàng. ah déet corona bi kay xale nag dépendre ci ñoom. Hmm, déet mi ngi fi rek mais parce que mi ngi ah, ah. Ah, fagaru rek. moom kay rek boo bëggee dégg dëgg moom fi nekk nii. fagaru hmm. ku nekk da war a doon toño. Hmm. doon toño. toño de ku da nga war a doon ministre intérieur wax. kese gis nga yii yëpp gis nga yii yëpp nii. affaire naa sal la nii rek. mbër wallaay lii yëpp du du yi sénégalais bu ne. mooy doon te ñoo wax ji jeex. <laughs> non lu am solo sénégalais bu nekk mooy doon Antoine Diome bind communiqué boppam. mooy dëgg doon sa intérieur bopp mais gis nga yi li nga wax daal dara du ko dindi. ma ne voilà. tribune yéen a kaay ñëw ak ñun ci. yes. <laughs> tribune yéen a kaay <laughs> mais yaa mais virus bi mi ngi bala mi ngi bala de. lii laa la doon wax léegi. Hmm. déggoo ma de eh. génie civil 2 campus bu 3 gestion 2 professeurs yi ak étudiants yi jël nañu. déggoo ma de ndem si yàlla institut nii. Hmm. ESP nee na ràpp. tëj na léegi ay buntam. cas yu bëri la ñuy ci biir daara ñu kawe ja. waaw léegi lii la ma jox la bi sawar na de. dañ naan ko rapport wala nañ ko continuer jàng noonu rek. Hmm. essayer de vivre avec le. premier vague bi dañoo jëloon mesure yi soxal école yeeg yooyu waaye dañ leen bàyyi foofu c'est des lieux de contamination. Euh, waaw. xamee ni euh, vision am na solo ci booy jiitee réew. Mary Teuw Niane dès le il avait dit que euh, teyu ak ëllëgu njàng ak njàngale bi numérique la. mais yu bëri gëmuñu ko ñu koy xeex mhm. ba mu teg UVS. Mhm. tey jii ñëpp nangu nañ Covid bi ni numérique. Mhm. c' est incontournable. si waxuma la sax affaire njàng njàngale mais ci li ñuy war a def yëpp ci àdduna. àdduna bi. <laughs> ordre mondial bi de xam nga fan la de moo tax ma ni taw ni attention. suñu papa yaa ngi dem rek. dëgg la de. mag ñi kay moom ñu ngi dem rek. nañ leen nañ leen nañ leen bàyyi xel. jaari et <laughs> Saari moom comme que. sa xarit non gars yi dañ ne comme Saar. mu ne leen. je reviendrai. dañ ah, noppi kay dañ noppi rek. mu ne. Moïse. Ah, Moïse a mis en garde presque toute la République. bu kenn wax. réew mi yëpp la ne tournons la passe garée. te moom Moïse Sarr moo yëkkati woon dossier garé. jaar kii Moïse a dem ba wax ñaata la jaare di laal par weer bu dee. muy bourse ba. jaare dee presque tuuti laa koy ëppalee ci li may fayeeku ci kër gi. Mm. <laughs> wal fajiri ñëwoon ñun ci. ndakaaru nag ak Thiès. Mm-hmm. li mbéygee fee <laughs> ajal ajal ah waaw ah, ah, ajal aj nañ ko fi mu couvre-feu bi jeex na. ñu toog di xaar. léegi rek dañu koy yaatal ci yeneen 43 yi des. département yi en cas ñaar moom xaw ma région yi moom. ñoom ñaar loolu. léegi nag boo tax wal fajri ne ñoom ñaar nag ñi ngi taxaw di xaar. dégg jarbaat. Vox Populi ñëw ak ñun ci. waa léegi Sénégal nu muy def ba daan mbas mi. Hmm, hmm. mbër la de oh. mbër la de. te amuñu dara lu doy ndey sax mbër la de. gis nga BP juróom-ñetti mesure la jël. Hmm. ne Sénégal njortees nañ ne juróom-ñetti yépp bu ñu wàccoog moom mën nañoo féete kaw mbër mi xam nga wàcc ma daan naa la warul ku daan da ngay féete kaw wàcc ma daan foo ko ma si dégg Double Less bu jógee woon Casamance ba ñu bëre bu la daanee day toog xaar photo hmm. nga ne ko lees wàcc ko daan nga ko eh, ay olof laa ko wàcc naa la am na fu mu am nag de ah. wàcc ma daan la am na fu am olof daa bëri lay <laughs> monsieur wàcc ma daan naa la am na fu mu am fan la am na fu mu am <laughs> wàcc ma ay Mamba Ndiaye. ah loolu moom amul fenn. non wàcc ma daan naa la am na fu mu am man kay waxuma dara lu gën <laughs> ay man waaw nañu continuer euh, Vox Populi. <laughs> voilà c'est ça. mais en en tout cas fii daal juróom-ñett la jël. yoo xam ne njortes nañ ne buñ ko jëlee daal xëj na mbas mii mën nañ ko daal. waaye mën mhm. nañuy obstacle yi ci mbas mi doon leen ay toñoo <laughs> toñoo moom ay ree la ma def le tey mooy kaa ñëw ak ñun ci waaw kay syndicat pharmacien privé yaa ngi ñoom ñoom day ñoom docteur Assane Diop ba réew moom fépp am yënga-yëngal hmm. fépp am yënga-yëngal yaramu màggat la ah yaram ah. yaramu màggat la foo ci laal day <laughs> non man yaas nag réew mi lay laajte de réew mi ñoo wax ne man nañ lay laajte. dëgg source a ñëw ak ñun ci gis nga pos ñeent fukki milliards ak ñaar yoo xam ne jarabaat dañ koo jël nii rek di ko di ko di ko di ko pomper quoi il faut sàmba alaar moo tax it liggéeykat yi ñoom xam nañ ne ti dee la jëm moo tax it fi mu nekk nii jàkkaarloo tas ko dox baari mais Jolof. mais tey chiffre jorof yi moom gis nga ni mu inquiétant yi dix morts ca Linguère huit ca Daara cent soixante six mooy jorof waaye lii doyul waar jaare ngi nii non jaari moom mu ci wax daal bàyyi rek mu ci sànni mu ci kile xale yi colonel yi wax nañ de ñu ci bare bare hmm. jàng ni jaare warul woon a def lii benn dem te tàggoowu ñaar nekk ci loo xamante ne nii moom la ñii kidnapping lañ foogoon uh-huh. ñii sàcc ñii lii ñu koy wër jaari génn xamal tonton ne ko maa ngi woon ci bagage uh-huh. xam nga li ma la ñenn ñii di wax ko ne ko budul dara mu xalaat ndayam ji doon tiit ñeneen ñi tam jàpp ne jaari nii jaari na xam ne gis ni li ci réew mi du France. dëgg yàlla France ay mbirum liberté. waaw loolu la lii. Mm. égalité. jànk di pooju ndey la ñu xam. Mm. boo demee jànk ci bitim réew rek la. waaye dem ñëw bind Serigne Mbaye ci am naan ko ay pototo pototo <laughs> waaye yow waaye jaari bi jaari bi ñu yokk feebar. dégg nga moo tax réew mi quotidien nañu gis nga ko jaari pototo bi nii. ay. <laughs> nii nii nii et ni ñu médiatiser l'affaire Diary moo gën. Mm-hmm. ku médiatiser. est-ce que politiser wuñ ko sax. déedéet. Mm-hmm. Ah, affaire bi kat moom mujj dem ba nekk. am na am na lu ci doon wut yu tudde daal mais mm. la présidente de la république. le le la la toute la république. waaye yow xanaa déggoo li ma la wax. te nag boo bëggee dégg-dégg ak li coow li bëri nii yëpp yëpp tànn nañ ko mu ne ca mais journal bi nee na ñu ko gën a xarit nag ñoo fi ne. ba ngay dégg dëgg coow lee bare rek Ahmed waxam a bëri nii. nii waaw wax ci mooy mooy mooy est-ce que jaar yi moom gis nañ ko. <laughs> ah gis nañ ko ba joxe bul yëngal monsieur le maire. Ah, damaa xam ne ñu ngi wax boobu ba tey waaye. déglu ma àddu fenn fu jaaru àddoo xaw ma jaari. jaar yóbbu ko tës. jaaree ah. doo ko yóbbu tës. Mm. non non non jaari kay comme que. mooy saar mooy saar nee na jaari sow mi ngi nii jaari <laughs> daal mi ngi nii ak ah, l'observateur moom. tey. yaas liir ko. mu ne. négal ma liiral. mama ah yow ngay lunette waaw. lire nag de. la vérité cachée. waaw mais son ah, hôtel à plus de cent euros près de la gare de, du Midi. les résidences de jeunesse à Bruxelles. Wow. la lettre adressée à son parrain et la famille. de poètes qui l'a hébergé. son possible retour. fii si dëkk bi. ay boo fi ñëwee. waaw ok. c'est ça garaaw ñu de seer ko rek. c'est bon dégg nga dégg nga se yaas c'est bon dégg nga. c'est excellent. c'est waaw. libération ñëw ak ñun ci gis nga li ñu doon wax démb nga paru. Hmm. dañ fa jàpp drogue ak dugg na fi génne fi loolu magum drogue la. nekkee labo la. labo la fa ñu toggee fa ñu toggee mbir yi. Ah. nga paru. danoo xarañ nag. mu ne. danoo xarañ. <laughs> monsieur le maire les écoles yéen a kaay ñëw ak ñun ci. xale bii nga xam ne le jeune américain la Mohamed Cissé kaw nag mooy bu mu rayoon moom waaw te boobu ba léegi hmm. gars yi ñu wax ne ñoom ñoo ko rayoon nag jàpp nañ leen gis nga Amadel Kam yi bopp bi ci boppam la dóor ba mu jigi dee parce que dafa bëggoon daw yàlla doon daw nattu bi moom moo ko mujj daw noonu la mujjee voilà waa parti démocratique sénégalais nag tontu nañ waa ñoo lànk ñoo lànk sax moom presque daanaka tas na di ñoo lànk hmm. ñoo lànk kay mujj la ñoo nekkati léegi ñoo bañ dégg <laughs> ñoom Toussaint Manga ak na fi jàlloo ñëpp gis nga ñu ngi nii ñoom daal tontu nañ parce que ñoom xam nga waa ñoo lànk hmm. ñoom taxawaayu PDS moo leen jaaxal hmm. safuñ jàpp safuñ jën nekkuñ position li yéeg li moo tax ñoom na fi jàlloo ne leen yéen xam nga gone yi xuus naa ñàpp ñu tekkiwul dara déet waay def ngeen seen i bêtise nangu leen na yéen bu leen ñu ci boole en tout cas waa met ñun ñamaguñu fuñ ne ñu ngi fi ay waay tey sànq la ñuy ñam. te ba léegi ñamaguñu de ak ak Covid bi lu ñuy ñam nag. déedéet ñoom kay seen. ah mënoon nañ leen dénk dara ci Covid bi ñu ñam. dégg mais monsieur Sy le soleil tey lii la bind dispositif bu police bu bees bi mhm. Dakar nee na affaire yaa ngi circulé de ah. ça circule. ah ah. ah. <laughs> léegi yéen patron yi yor oto yéen a ko xam ñun xam nga <laughs> moom comme que dañuy yóbbaale. <laughs> ay monsieur le maire. dégg nga eh. waaw kay. Covid bi li mu fi nekk yëpp journal bi de nee na am na ay côté yu dox. Hmm. ah mi ngi nii investissement direct étranger bi 750 milliards Abdoulaye Daouda Diallo de ngi nii moom moo ko wax. dégg nga loolu critique yéen a kaay xeex ba moom ay nitam ñoo leen war fi hmm. xeex ba dee ak mas la ñoom ci bañ dara. waaw muy Sarr clos dossier jaari. nee na xale bi nga nekk en bonne santé. dégg nga nekk na sécurité feeñ na jébbal lañ ko tonton Serigne Mbaye wax ji jeex. waaw bu leen kenn rayante léegi ak jaari nag dañoo war a bàyyi jaari wax ak mooy Sarr. <laughs> non mooy siw boppam lañ war a waxal. parce que mm. Moïse moom moo fi génn wax ne jaari lii ak lii ak lii ba wax ñaata lañ koy jox. weeru de kenn seexalu ko lem de. déggoo ma de kooku mënul ëlbatiku ak na ñu bu leen joxee seen xalaat ci jaari wala noppi leen ci jaari du tax. Sarr hmm? na dana yéeme de. dégg nga. Mhm. waaw kay gis nga ñetti sociétés yi ci dee la ñu jëm Dakar dem dikk Sonacos ak Poste. dañuy dee yi de xaw lu ci mag. <laughs> Poste moom ñu ñaa yu yóbbu ay lettre ba léegi. dégg enquête yéen a kaay ñëw ak ñun ci vaccination Covid baa ngi nii. gars yi ñu ngi manœuvrer rek. di manœuvrer. ku ci nekk nga xool fi mu nekk nii Sidiya Ndiaye nee na ñoom moom du ñu jóg di laajte 64 milliards ya ana xaalis ba. Mm. ana xaalis ba. xaalis bi seen. ci ay milliards fii ci Sénégal. waaw moo comprendre déjà sax bi ci gën a grave mooy bi ci gën a baax sax mooy annulation de la dette bi. c'est-à-dire ñun fardeau de la dette bi ñu daan fay chaque année ci dette. bari na façon bari boo xam ni daaw ren ak déwén yëpp duñ ko fay. loolu rek soo ko dugalaatee ci gafe gi rek. beaucoup de choses bi duñ ko annulé de. Jogay day Jogay ku tudd xaalis lay bañ moo tax gis nga euh, APR ah, euh, euh, cadre APR diaspora yi nee nañ dañ doon dëj Boubacar Seye noonu ci anam moo tax waa Horizon sans frontière ne leen yéen seen communiqué bi ko liire xam na justice mooy bras armé wu APR. benn ñaar ku ko liir xam ne tout est politisé ci affaire Boubacar Seye xoolal xamal lan moo gën a nee nañ soo demee ba lii dafa ñaaw sax. naan ay Horizon sans frontières est une organisation européenne illégale au Sénégal dirigée par un espagnol d'origine sénégalaise. Hmm. Boubacar Seye daal lañ bëgg a génnee ci réew mi def comme nasaraan. mooy bi ñu naan Karim Wade mii sénégalais. Hmm. koo xam ne yow kuy sa bàyyi ñu ne Ablaye Wade. alkaali Massamba. waaw tey damay njaab. de Coro Sarr <laughs> maa ne Coro Sarr alkalima Samba borom jam yi sa gànjool kenn du moom moo tax ba ñu xam <laughs> autoroute à péage mais balaa ngi def doo doo jiirul waar non dama jëm mag boo jëmee mag kuy kuy bëggal gaañ retraite laa gën a jege <laughs> yaas waaye Ameth merci waay. <laughs> kenn du moom Ameth ngeen yàgg si kanam beneen di ngeen ko dégg fële ca Zik FM tës lay <laughs> dem. ay mi ngi noonu ba tey rek dañuy wëyandi ak.